koy wax ñëpp dégg ko am na benn rattachement officiel boo xam ne bii rattaché euh, quartier yu mel ni Maam Sira rattaché leen ci commune de Rufisque je pense que c'est une erreur et cette erreur là doit être corrigée je le dis à haute et intelligible voix dama koy wax ñëpp dégg sama ambition mooy fexe ba réunir la ZAC de Mbao autour de la commune de Mbao parce que loolu mooy li nga xam ne moom moo viable ce découpage bi nga xam ne moom moo am jàpp naa ni dafay xaaj Zac Mbao en deux te bi muy xaaj Zac Mbao en deux parti yu am importance yëpp mu ngi féetee fële poste de santé bi mu ngi fële CM bi mu ngi côté bële lu bëri infrastructure yu bëri côté bële la nekkee donc bu ñu defee noonu beneen côté bi day tumaranke moo tax ñaari côté yëpp ñu boole leen boole leen ci mbaaw yaakaar naa ne mooy solution bu gën a baax loolu nag euh, du euh, loo xam ne euh, dama jàpp ni ay xëccoo lay doon déedéet parce que nous sommes des républicains nous allons tout faire pour que cette partie de Mbao revienne à Mbao loolu moo tax ma wax ko ci loolu moo tax ma jël subvention jox a s yi nga xam ne ñu ngi nekk ci beneen côté bi officiellement organiser cette cérémonie de remise euh, de clé du bus de modèle de Mbao que la municipalité a bien voulu acheter euh, pour notre club Fagnon le club modèle de Mbao euh, c'était un engagement que nous avions pris devant les Mbawa et par la grâce de Dieu aujourd'hui, euh, nous avons pu honorer cet engagement, euh, celui de remettre euh, le, les clés du bus de modèle Mbao qui au budget de la commune 49 millions de francs CFA. Vous savez, une partie de la Zagbao se trouve dans euh, euh le, périmètre, le périmètre communal de Refus. Je pense que c'est une erreur qui va L'essentiel des infrastructures importantes se trouve de l'autre côté. La ZAC de Mbao doit être rattachée à la commune de Mbao. Nous y travaillons. C'est la raison pour laquelle il y a des ASC e qui ne sont pas euh, euh, dans le périmètre communal, mais nous avons tenu à leur apporter notre soutien parce que nous considérons que cette population est aussi une population de Mbao.